Vurarsan Prizak, Vurarsan Prizak. Vurarsan Prizak. Prizak'tan Prizak git, Prizak ne kadar umayı? Ne kadar umayla? Ne kadar umayla? Baba, ha! sorti ba tàyyi di ñaanal Gris Bordeaux Gris 2 yàlla may ko ndam nga la dañoo amoon problème si combat ak Pakala ba yoon atte ñu maag moom kon du ma ànd ak Eumeu nga ñëw naan nag may boole ak ay zemi man du ma kuy zemi di dóor man fii laa dëkk xoolal écrit waalo képp ku fay bëre yàlla na la yàlla may ndam ba mu des Gris Gris bu kii Abdou Diouf Abdou doo waay doo laal mais eh, Eumeu Sène bokk ñu ñu ko jëlee tournoi bi waaw tey mu jël ay combat loolu dama ciy def code dama ciy def code code mooy eh, eh, man li ma siy wax mooy combat bombardier Balla Gaye dinaa sol teesu Balla Gaye mais jour combat bi Eumeu Sène Balla Gaye dinaa jox surtout euh, Sitor ak Malick Ngom ku nekk peel ku daan suul kari lan dinaa jox si ak Malick ku nekk peel comme daan suul rek laa ko deful non loolu wuy ma jot déglu ma waaw waaw waaw émission bi jàpp na ma trop mais sama rakk la sama xarit la ah. ma koy ñaanal yàlla ndam lu sedd guy. ñu gis ni préparation bi yëpp ak yow la ko defee dafa mel ni combat bi da nga ko yow yow yaa ko jëlal sa bopp. si parce que xam nga am na lu bëri yoo xam ne dama ko war a def ci moom man en personne. te incha allah nañ continuer liggéey bi après combat bi incha allah. incha allah mais lan la boo xam te ne bii da min na Igri Fass. ah min na Igri Fass yàgg na faa dugg. waaw mais dara loolu amul benn problème day lay day lay jeex tànk. mais moom nee na combat bi lépp lu fay neex moom moo koy def. ah nee na combat bi tey lépp lu fiy neex moom moo koy def. am problème.

jàppase nañu ñoom ñaar jàppase nañu ñoom ñaar Boy Maroon mi ngi koy añ mu bañ Boy Maroon mi ngi koy añ mu bañ Boy Maroon mi ngi koy añ mu bañ jàppase nañu ñoom ñaar mi ngi dóor Boy Maroon mi ngi dóor X9 Boy Maroon ngi ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar rof na ko caxabal dindi na ko daan na ko laa ilaha illallah X9 daan na Boy Maroon X9 daan na Boy Maroon X9 daan na Boy Maroon daan na ko jël bu waa kii la la def fii booy moroon jaxle la booy moroon jaxle la booy moroon day nelaw koy jëlsi si koy jël si na jog ña koy jël si saba saba moo nekk noonu ci géew bi ak doomu jama doomu jàmba gën saba aka mën a bëre arbitre sifflé na ko Saba jàmbaar daw na jaa ko da koy daan wala lan doomu jàmm gën mu ngi koy jaay perek doomu jàmm gën daw na jëlaat la mu bañ doomu jàmm gën waay Saba ak doomu jàmm gën mot na ko moo ko man bilaay moo ko mën dara bettuma ci borom mbooloo moom andi yaraax la joge Saba daa mën a bëre mi ngi bëre simple bi di wane boppam daan na ko jël bu rëy waay jël bu rëy waay lii daal bëgg naa ko ci làmb jël bu sant yàlla rek li lañ doon ñaan yàlla ma ca am ndam mu des suñu grand Abdou Diouf ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla taxaw yàlla may ko ndam lu rëy ci barke Seydina Mohamed ah kontaan nañ vraiment supporters yi ñëw ñëpp teew nañ. gunaas a ngay yëngatu Lac de Guiers gunaas loolu noonu moom caatu rëbës xaadim caatu rëbës mi ngi fomba yaram bi xaa daa tooy daa mel ni caatu rëbës daa ñin moo waral muy fomba loxo bi noonu moom caatu rëbës du mën a ñàkk lambay suñu aada suñu cosaan lambay suñu baaxu maam fii suñu réew lañ ca amee kenn jégg la bi am na ñu muy waxal si tribune bi xaadim nee naa la lii mën bëre xaadim xoolal ma tribune bi gaa yaa ngi waaj bi ñibbi daa xale bi lii sa ngi noonu bon na corse bi ndeysaan lii sa ngi noonu daa cungam corse bi corse bee ngi zibile waaye ku daan kontaan waaye ku ñu daan nga ruus ah diggante Liss Ndiago bàyyi ko Diamaguène Thiatou Robas bàyyi ko Robas cat moo ñu war ginnaaw ngembo ngemb lu jaune war kanam takka takka takkaayu rouge moom liis gàlla gàllankoog sengoor bu blanc bi moom liis njaago nee naa ñaari xale yi dañoo jekk si mbër ñaari xale yi dañoo mën bis ñaari xale yi dañoo bëgg li ñuy def moo waral tey ñu nekk huitième combat de la soirée ak mbooloo bi nga xamante ne da leen di topp si stade bi du mën a ñàkk waaye Babacar borom Equivox sama doyen du mën a ñàkk ñaari mbër yaa ngi lewatoo ñoo ngi demee wet round d'observation Liss Ndiago Diamaguène catu rëbës rëbës brassement de bras déplacement catu rëbës mi ngi cokkas na droite Liss door na droite nee naa daañu doorante daañu bëre ah, Liss door na ko cat daw na jàpp ko combat ba jeex na jàppante nañu combat ba jeex na combat jeex na bu ñu jàppante la combat ba jeex na ñaari bërekat nañu a ah, Liss a ngi door si car si gi a ah, diggante Liss Ndiago bàyyi rëbës a rëbës dubal moteur nee ko caat ndam la ñu bëgg waaye su tane ko Liss ndam la ñu soxla ñaari mbër yaa ngi noonu ah ñii duñu ñil de ah, victoire day am de xam nga kuy daan waaye combat bi day am jël du mën a ñàkk Xadim Liss Ndiago ak Thiatou Rebeuss jàppante nañu ñoom ñaar ñoo ngi pesante Liss door na Liss door na Thiatou gi dalis ak caat liis a ngi door gauche rokas daa bëgg adversaire bi sigi mu mën ko bët remplacer ko loolu la liis njaago bëgg waaye caat daa mel ko comprendre moo tax wuyu ko si xeex bi waaw liis njaago caatu rëbës caatu ñu woon ginnaaw ngemboo ngemb lu jeune li liis moo ñu woon kanam mo mbër yi jàppante nañu combat tactique combat jinne ñaari espoir ñaari xale yu am ginnaaw ñaari xale yu ñeme lu ñuy def ñaari xale yu bëgg lu ñuy def a ah, diggante Liss Ndiago la ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Robes ñoom ñaar ku nekk day ndax bis bee toll ni ñu mel caatu Rebeuss Liss Ndiago caatu Rebeuss na ko Liss takk na na ko tal na ko caatu Rebeuss Liss ñaari mbëri caatu Rebeuss Liss ñaari mbëri laa ilaaha illallaah Liss Ndiago jël na caatu Rebeuss jël bu bu amul benn warante xandi waxoon naa la ñaari xale yaay jënd nañu xoolal ma lii waaye caat jugal caat dugal gàcci ngalaama bëre nga caat waaye caat bëre nga Liss Ndiago bëre nga waaye na ko ndam eh, bi combat Liss Ndiago caat Liss Ndiago am na ndam si kaw caatu rëbës eh, il n'est pas de mérite ndeysaan caatu eh, rëbës jaaxle na il n'est pas de mérite xaadim xaadim rëbës il n'est pas de mérite bi gerte moo koy seq ak ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Tine Mbaye Tine numéro 2. Mbaye Tine numéro 2 Diarra 2 arbitre nee na mu ni waaw Diarra 2 mu ni waaw wala néegul waaw arbitre sifflé na Mbaye Tine école Fadam jërëjëf Omar Diop Mbaye Tine Ramdan Diarra 2 école de Mor Fadam ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Omar Diop fii ci arène nationale ak Dieye production du yomb rek ngi leewaatoo ba léegi xeexaguñu songoguñu cokaasaguñu ay waay gaaw waay bëre day gaaw ma ne ko bëre dafa war a gaaw mbaytin moo ngem moo ngem bu weex bi tojtal ko ak rouge di nuyu jamaïcain depuis Gambie cokaas njort naa ne bu ñu mu jeex cokaas di ci nuyu Jeylaani Puy jara mooy mbërëm moom Jeylaani ba dara xewul 2 Mbaye Tine arbitre waaw waxal ak ñoom avertissement verbal nee na 9 minutes ngeen koy leewaatoo xeexu leen bëre woo leen 9 minutes ci ay ponkal face à face ngeen wax a wax a wax a wax saf yàpp ñu boole leen ngeen di leewaatoo avertissement yi jaadu na de ah. kay ñu yow xeex. dañoo ngeen xeex foog ngeen raag foog ngeen raag bëgg naa ko raag raag leen xeex leen da ngeen a war a xeex waaw waaw. non. daw la jël ko daan ko tibb na tànk ya daan ko yoxosu na ko daan ko yow yoxosu kat nga lii nga bëggoon mbaytin yoxosu na ko daan ko jara deux sa ngéem na waaru na mbaytin yoxosu na ko daan ko laay laa daan nañ sama mboru xarit ba daan nañ mboru jeylaana puy ba kenn mës a gis suñu maam l'Africain même Abdoulaye Wade nga xam ne ñu njabootam ci keppaaru nit ku ci mën a jógee moom Bakary Maam Penda Biaye Marème Baak sa maam rafet digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Forza 21 février 2018 ku kiri da ba xam pare nga mun waaw mun sifflé arbitre sifflé na ñaari mbër yaa ngi leew too écurie Fass Ndakaaru écurie Waalo Gris 2 ngi dox ci kawam aj garde bi Abdou Diouf reculé Gris 2 moo ngi def teg ay pas jëm ci kaw Abdou Diouf ndax day yàgg ndax du yàgg ndax raag day am ci kanam lay leer combat xale ak mag la déclenché góor daw na jël ko roofoo nañ roofoo nañ ñoom ñaar roofoo nañu ñaari mbëri a Diouf giri doo roofoo nañ ca kaw jaay na ko doole kal kal kal dàq daan na ko daan na ko daan na ko moo ko man combat xale ak mag la combat xale la ak mag santal yàlla santal xeex laa la wax barki alxuraan billaahi làmb lii la mbër mu ndaw mooy folli bu mag Abdou Diouf démérité wul mais su amee lamb man géejawaay maa fa Balla Gaye génn na Mor Fadam génn na àdduna Alaaji Daawda Fall génn na àdduna ñun ñoo di seeni mag Abdou Diouf ak Gris Bo Gris soreyowuñu mais fi mu taxaw di ko fa xaar du yoon dañ ni ko woon bu arbitre soufflé yokkal ci gannaaw def rotation bul tëju mais nag xëy na lii la yàlla dogal koy ñaanal bu ameen beneen combat yàlla na ko yàlla jox ndam Gris 2 yàlla na ko ndam li jik ndax xale yi ñoo leen jaboote te ñun kilifay làmb yi dañuy jéem a lu rafet làmb mooy suñu sport kon tey Abdou Diouf waroon na mën a daan giri giri mën na waroon na ko mën a daan giri daan na ko ñun waa Géejawaay ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko sutura mais Abdou Diouf mu góorgóorluwaat xam ne làmb gi ci kanamam mais ñu ngi koy xamal ni ko bu beneenee magu Géejawaay yi nga xam ni bu ñoom Balla Gaye jógee laaj leen xalaat tey jii dafa ñëw ba ci làmb ji fekk ma ci loge bi ni ma grand kaay te woo naa ko plusieurs fois pour mu ñëw ñu jokkoo jël nag bu ma ko doon jox bu jubee giri sax mu daanu kon nag loolu la yàlla dogal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di la ñaanal bonne cantine. combat yi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugul ko sama tànk yi. boobu lay gëj a bëri maa ko daa ko bëri fuuf ko ma ko bëri ndànk sax danaa ko damm ba toog ci kaw bu fekkee dafa am fu lu ma bëgg a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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk